jërë ngeen jëf mbokk internet yi ginnaaw bu ñu leen di dal leen ak jàmm seeni actualité du jour ñu dooree kook nag kii di Omar Mbodj nekk doomu Sénégal bi nga xamante ni moom la ñu faat foofee ca États-Unis ca Atlanta ay xibaar yu bees nag daal dinay am kon ci mbir moomule bu ñu sukkandikoo ci ak njabootam moom mii nag ñi di ay xaritam ñoom ñoo daal di koy euh, kàmbal ñoo ko teg piège maanaam rek bi lépp agression ñu daal di koy def moom Omar Mbodj ci njabootam xam ne nañ ni xaritam yooyee seen loxo setu ca benn yoon bu ñu sukkandikoo euh, ci benn pa nijaayam buy wuyoo ci turu Omar Diagne nee jarbaatam bi nag dafa génnoon dem déposer benn xaritam boo xamante ne nii euh, si seen kër googee fa la woon keroog ca bës ba bi ñu nekkee ci yoon bi nag euh, ci la dajeek yeneen xaritam yoo xamante ni daf leen rekk yóbbaale ci biir otoom ñu ngi woon nag ci seen biir oto di waxtaan lépp di jaar yoon kii di Omar Mbodj nag moom moo doon dawal jékki saay ci la ko ay agresseur daal di euh, attaqué nee na nag li ñu bëggoon mooy jël ab montram montre boobee nag montre jamaa la moom la takkoon ci loxoom nijaayam joojee loolu la xamle waaye nag kii di Omar Mbodj moom dafa lànkoon ba tëdd ci suuf ni du leen jox euh, montre ba ci naka noonu nag la ko mujjee faate ginnaaw ba ñu defee seen jëf ju ñaaw joojule bu ñu sukkandikoo ci les quotidiens ñoom ñi nag dañoo daal di ne mër euh, daw muy agresseur ya jamono ji ñu toll nag kenn ci ay xaritam nga xam ni ci la nekkandool ci biir oto bi daal di nañ koy teg loxo ngir lii di enquête bi di wéyandi ba xam ñeneen ñi fan lañ nekk jamono ji ngir ñu mën leen teg loxo ci faatu kii di Omar Mbodj. ñu wax ci leneen te muy mbiri waa ji di wuyoo ci turu Moussa Fall moom mi leen nag ab mécanicien la jëf jëmu def du leen lu dul saboté ay frein ka nekkoon patronam ndax nag dàkk ba mu ko dàkk moom mi nag di di ca Rufisque euh, niki démb lañu ko rek yóbbu ca kanamu baaru tribunal flagrant délit bu euh, Dakar euh, di ko toppee mise en danger de la vie d'autrui ak dommage à la propriété d'autrui itam Euh, moom mii nag loolee waral ñu daan ko juróom benn weeru kaso yoo xamante ni ñett yi daf koy tëdd euh, rax si dolli nag 250 000 yoo xamante ni daf koy fay euh, amande moom mii nag tuuteetee kon mu daal dee faat patronam bi ak doomam bu jigéen la ko waral mooy oto bi nga xamante ni daf ko sabote daal di dagg frein yi mu taxawee ca kanamu baar ba nag moom ndey mbili gi daal dinay dellu ci yëf yi nee na mi ngi xew ci bésu bésub dimanche 28 novembre ci bés boobee nag foofee ca ay numad yi dafa amul benn set setal buñ ñu doon amal ca koñ ba nee bi 11h di jot nag ci da ko soxna si di wuyu ci turu Mariama Diop daal di egsi eh, ngir déplacer otom fi nga xamante ni fa la ko gaare woon. nee bi ay 17h kon di jot ci la gis appel en absence am nee na bi mu ko bippee ci la ko contacté waat di ko wax ni eh, daf looy ne bëggoon a may kon ay sachet ndox ñoom ñi doon def set setal bi waaye beneen nit moom la ko jox. Eh, nee na bisu vendredi nag ci la ko convoqué police ca njëlbeen ga nag eh, moom mi di Moussa Fall daf doon wax ni eh, deful leen lu dul jël ay peel daal di koy teg ci suufu oto bi rax si dool yi nee na oto ba sax moom benn yoon rek moom la ko mës dawal waaye ginnaaw bi ko enquêteurs yi bombardé ak i question ci la avoué ni moom moo dagg frein ya lu jëm ci nag Mariama Diop moom nee na keroog moom moo déplacé oto bi parce que buggul woon camion bi ramassé mbalit yi daal di koy yàq ba mu paree nag nee na ci la kii di Moussa Fall jotu ko ci noonu ci la yónnee kii di ab jànkam ca boutique ba ngir mu jëndal leen ay sachet ndox nee na nag bi 18h di jot ci ngoon ci la woo Moussa Fall ngir mu dellool ko kon ab otoom fa mu ko gaare woon ba mu xëyee ci ëllëg sa moom soxna si di Mariama Diop ci la rendre compte nag ni mënatul freiner otom bi nee na nag euh, contrôle otom bi yëpp daf ko perdre ginnaaw ba muy dem euh, di yóbbu rek doomam bu jigéen mu ndaw bi mu dem di jàngi mënatul woon a arrêté oto bi ba mu wotee nag ci concessionnaire am bi ci lañ ko wax ni rek sab oto dañu ko saboté ndax frein yi dañ ko dagg euh, ci la dem daal di porter plainte contre x ginnaaw nag ñoom takk der yi bi ñu defee seenu enquête ci lañu gis benn témoin bu wuyoo ci turu Maxtaar Ngom moom mi li ab tailleur la ci la wax ni nag gis na kii di Moussa Fall ci suufu oto bi rax si dolli moom nday mbi gi di Moussa Fall ci boppam daal dinay taxaw ci kanamu yaayam ak ñetti paa yu dëkk ca koñ ba reconnaître ni moom moo def loolu moom soxna si di Mariama Diop nag di laajte ana lan moo waral muy def boppule comportement donte nag moom baal na ko ci xol bu sedd guy nee na ba mu koy recruter dafa nekkoon en état de grossesse ci mois de mai waaye nag bi mu fa defee daanaka rek ay fan daf ko wax mu arrêté ndax boobu jamono télétravail moom moo commencé woon moom mi di Moussa nag lam fa xamle du lenn lu dul mujjee di baalu ak nii dafa meroon rek moo ko jàpp teewul nag tribunal bi daal di koy daan juróom benn weeri kaso yoo xamante ni ñett yi daf koy tëdd rax si dolli deux cent cinquante mille francs yoo xamante ni daf koy fay amande kii di Mariama Diop wax ci leneen te mu jëm ci lakk bu metti ba amoon foofee ca diwaanu New York ca fu ñuy wax Bronx benn arrondissement bu nekk foofee ca New York keroog nag ci dimanche bi ab incendie bu méttee métti moo fa déclaré wu dix-neuf moom lay def foofee nag lu tollu ci onze Gambien ñoom daal di nañ fay ñàkk seen bakken tàkk-tàkk bi sax nag guddi la daal di bett ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo fa dëkk nekk di euh, nelaw sukkandikoo ci kii di euh, Ibou Thiam nekk consul honoraire bu Gambie foofee ca New York ginnaaw bu ñu ko invité benn rajo daal di nay dellu si ca jeeyo jooje nee na nag lu toll ci onze Gambien daal di nañ ci ñàkk seen bakken ak dix-sept yoo xamante nii jamono ji grave am na nag benn famille bu ñuy wax euh, du Doucouré euh, moom ci ñoom la gën a mette ndax nag euh, juróomi nit ñoom ñoo fa ñàkk seen bakken muy papa ji yaay ji ak seen ñetti doom bu ñu sukkandikoo ba tey ci xibaar yi ñu fësal boobu lépp tàkk-tàkk nag mu ngi jógee ci benn dysfonctionnement chauffage d'appoint bu nekkoon ci benn appartement ca immeuble ba foofee ca troisième étage bi. Ndella Madior Diouf jamono ji mer ba futt moom la def jëmale ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa lenn lu dul ay ñaari puce muy numéro téléphone am yoo xamante ni dañ ko daal dagg kon ba noppi daal koy eh, attribuer keneen eh, moom nag la ko ca gën a yooyu yëpp whatsapp la nekkoon eh, li mu amoon ci ay contact yu am ci moom ñoo xamante ni ñu ngi bitim réew ak te nee li ko ci gën a métti nag fi mu tollu tembe ci fi nga xamante ni moom mooy campagne yi moom mi nga xamante ni kon nag dafay xëccoo jongante yi mairie foofee ca diwaanu Fimela Ndella Madior nag la mu xamle moo di ba mu wootee ca numéro boobee dafa jot ki nga xamante ne moom lañ ko attribué jamono ji kookee nag dëggal na ko ni lépp loo xamante ne mooy ay données mu ngi ci moom foto ki vidéo lu toll ci quatorze mille contacts yoo xamante ni nee na commencé na ko supprimer loolee nag Ndella Madior mënu ko toogaale benn yoon ba tax na nee na dina porter ji plainte commission de données personnelles waaye itam procureur de la république fi mu ne nii nag la lu dul violence dañu ko tooñ moom Ndella Madior Diouf loolu la xamle kii di Omar Mbodj nekk doomu Sénégal bi nga xamante ni moom la ñu faat foofee ca États-Unis ca Atlanta ay xibaar yu bees nag daal dinay am kon ci mbir moomule bu ñu sukkandikoo uh, ci ak uh, njabootam moom mii nag ñi di ay xaritam uh, ñoom ñoo daal di koy kàmbal ñoo ko teg piège maanaam rek bi lépp agression ñu daal di koy def moom Omar Mbodj ci njabootam xam ne nañ ni xaritam yooyee seen loxo setu ca benn yoon ko eh, ci benn pa nijaayam buy wuyoo ci turu Omar Diagne nee jarbaatam bi nag dafa génnoon dem déposé benn xaritam boo xamante ne nii eh, si seen kër googee fa la woon keroog ca bës ba bi ñu nekkee ci yoon bi nag eh, ci la dajeek yeneen xaritam yoo xamante ni daf leen rekk yóbbaale ci biir otoom ñu ngi woon nag ci seen biir oto di waxtaan lépp di jaar yoon kii di Omar Mbodj nag moom moo doon dawal jékki saay ci la ko ay agresseur daal di euh, attaqué nee na nag li ñu bëggoon mooy jël ab montre am montre boobee nag montre jamaa la moom la takkoon ci loxoom nijaayam joojee loolu la xamle waaye nag kii di Omar Mbodj moom dafa lànkoon ba tëdd ci suuf ni du leen jox euh, montre ba ci naka noonu nag lañu ko mujjee faate ginnaaw ba ñu defee seen jëf ju ñaaw jooju le bu ñu sukkandikoo ci les quotidiens ñoom ñi nag dañoo daal di ne mër euh, daw muy agresseur ya jamono ji ñu toll nag kenn ci ay xaritam nga xam ni ci la nekkandool ci biir uh, oto bi uh, daal di nañ koy uh, teg loxo ngir lii di enquête bi di wéyandi ba xam ñeneen ñi fan lañ nekk jamono ji ngir ñu mën leen teg loxo ci faatu kii di Omar Mbodj mbokk internet yi fi dañu yem ak yéen tey seen actualité du jour jox leen dig daje ëllëg ak jàmm ci yeneen xibaar jaa ngeen jëf.